فزت بزار في الأزال سيدة المزينات مريم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi nii toog ak sunub sëriñ di soxna jaariyatullah moom Cheikh Mahamadul Muntaqa mu Cheikh Mahamadul Bachir moom sëriñ Touba nu nekkak moom nag ci dëkk bu tedd bi di Poroxaan ànd ak moom nag ci liggéey boo xamante ni bii noo ngi ci woo képp koo xamante ni nee nga bëgg nga soxna jaara soxna jaare na buñ ko ne bu ne ku ko bëgg ñëpp dañuy yëkkat lox kon noo ngi soññ képp koo xamante ne am nga cofeel ci soxna si nga ñëw ànd ak soxna maam jaare mi ci liggéey bii nga xam ndigal la ci am ndax maamam Serigne Touba dafa waxoon ne laa tafaalu shay'an bi ghayri idnin fal idnu shattun fi qabul sha'nin bu kenn def mel ni mbir te amoo ci ndigal ndigal mooy tax nangu la jëf lii muy def nag da ci am ndigalal waajuram gu tedd yi nga xam mooy Serigne Touba am ci ndigal sëñ Isaax mi nga xamante ne bii moom la ñu dénk lépp loo xam dafa jëm ci fédération daayira Maam Jaara mu doon koo xamante ne bii nag liggéey bi moom ni mu ci mel mooy de cee ku ñëw fekk ko ci kuy dem ba ko ci amul woote bu muy woote moom daal pastéefam mooy def cee ne di ci sàkku ñëpp nag ñu ñëw ànd ci ak moom kon nooge ngi ñi ñëpp ñëw jàpp liggéey bi nag mettiwul nit a ñu nit mi ngi yenn lu ko gën a metti nit a ngi jëf ci àdduna loo xamante ni moo gën a metti liggéeyal soxna jaara liggéey bi mooy barab bii nga xamante ni mooy daara ji nga xamante ni mooy daara ji soxna jaara yi ne te Serigne Moussa Bachir defoon ko la taxoon mu defoon ko mooy dafa yëgoon ni soxna jaara bu fekkoonte ni mi ngi ci kaw suuf képp ku ko tuddee doom boo ko joxee la muy dëkk def ci moom mooy alquran Serigne Moussa Bachir nee na am maam jaara lu mu gàtt gàtt alluwa war naa miin baqara ba naasi loolu nag di liggéey boo xamante ni bii moom Cheikh Mamadou Moustapha am Cheikh Mamadou Bassir liggéey na ci bu rëy waaye bi ñu ko noppee gis jàmbaari Serigne Touba ji di Cheikh Mamadou Mountakha moom it dugal ca loxoom bi nag ñëw wàcc ci kaw si Isaaxa mu woo soxna jaaram yi ne ko bëgg bokk ak yiw ak képp ku bëgg a liggéey bi nag mooy daara ji bâtiment yi xaw na yàgg bâtiment yi xaw na yàgg te donga yi fa nu nekk bëgg nañ mu gën a tawfiixi waaye li ci gën a yéeme mooy am na réalisation bu mu fa def boo xamante ni sax daanaka ba réalisation bi so sottee la ko ñu bari doog a waaye bii mu simb danoo bëgg ñëpp nangu ko ci ay loxoom na ko tiim waaye bu mu ko yenu mooy yeneen bâtiment waxuma beneen waaye yeneen bâtiment yoo xam day ne ci daara ji ba so maam jaara yi fi ne gën a am tawfiix ñi leen di jàngal gën a am confort ngir yéene Cheikh Mamadou Moustapha mu Cheikh Mamadou Bachir sunu borom gën ko mottal ci donga yi kon noo ngi ñaan soxna si liggéey bi mu ne yàlla ko yàlla mottali fii nu nekk nag barab bii nu nekk ci Porokhane lépp loo xamante ni gis ngeen ko ci taabal ji maam jaara yi nga xam ñoo ne ci daara ji mokkal alquran ñoo ñi nga xam ñoo ko defar xam nga ne jigéen ju mokkal alquran lu mu defar moo gën jigéen joo xamante ni bii dundam gépp dafa yem ci tootoo tapp pate pate dundam gépp dafa yem ci A B C e, dundam gépp daa yem ci cib cib cib yooyu it jigéen ju mokkal alquran nga xam ne lu muy def ma ngi koy ma ngi koy ma ngi koy neexere baqara ba naasi kooku lu mu defar boo ko lekkee mën naa faj jàngoro ni saw yaram lii na ji xono gone yooyu ñoo ko defar amagun bàkkaar ci alxuraan dañuy xëy ci la ñuy gont te Serigne Touba ne woon na faman arada al qurba min mawlaahu fal yaqra il qur'anu la yansahu ku bëgg a jege yàlla del jàng alxuraan kon ñoom ñoo ñu gën a jege yàlla kon ñoom yii buñ ko defee shifaa'un min kulli daa la confiture yi ku ci lekk mën naa faj ca aajo mburaaki yi ku ci lekk mën naa faj ca aajo jus mën naa faj ca aajo Euh, gerte suukar yi ku ci lekk mën naa fa ci aajo jabet sax mën na ko rocc ndax ñi koy def amuñu bakkaar kon élément yi jar naa wuri ci marché bi jënd ko yii jóge poroxaan gone yii nga xam amuñu bakkaar di xëy ci alxuraan di ci ñii moom lu nu defar moo gën a dal lu keneen defar lu keneen defar nag mën naa baax ndax di nga tun leen waaye lii ga daa gën a dalum xel ndax ñi koy def na noonu sel te lu sel yàlla ne ca kon noo ngi ña soññ ñëpp ñu wër produit yii diggante ci confiture mburaake gerte suukar euh, cere ak lépp loo xam nit da koy jëfandikoo ñoom ñu koy defaree fii ci Porokhane te buñ koy defar nag dañ koy dañ koy mooñaaleeg baqara ba naasi téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent yooyu ci la ñuy doxantu di ko mooñ di ko defar ba nga xamante ne boo ko lekkee di nga am tawfiix ñooñu bokk noonu wuute noonu ñi nga xamante ne bii lu ñuy def dan koy boole whatsapp ak audio yu kenn xamul kon yàlla nu yàlla defal tawfiix kon ñoo ngi ci soññ ñëpp di woo ñëpp soxna si daal liggéey bi bu mu ci wéet na ci ñëpp jàpp am na ay carte yu ñuy jaay yoo xamante ni téeméer la téeméer maam jaara nag bu la jëlul téeméer maam jaara bu la jëlul téeméer yàlla yabal benn bongo man mu ñëw nga def ci moom ñeenti téeméer te doo ci am yàlla maam jaara la nu wooteel kenn ku ne yëgal sa bopp waaye koo xamante ni mënoo ci mam jaara téeméer waaye mën nga ci bongo maan bi junni te bu màggal jotee nga xatal mbedd ma war ngaa seetaat sa bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullah جدتنا مام جارة بصون سلم الجارة لاب أم الخديم الرسول الله جدتنا مام جارة بصون سلم الجارة الله الذي لم يدرك